muso laluma emna eh, alinga mama munabi muso Ayo ayyo abuwakanya olujibe bindanya masiri bedi maluo abuwakanya olujibe bambi muso lalumba eminyara eh, di malengo ayo di malemu ayo daraja fengani malengo bimu muso lalumba eh aninga mamango bimu muso lalumba eh aninga mamamu na bimu muso lalumba ayo kasulori afo dibide buwali afole ayo minisitari afole dibide afo bimu muso lalumba nga mama munabi musula lumba eh muna ali nga mama munabi musula lumba ayya bla sofa ulumani soli nyoya ya demelafo abanga musula lunga jura nyanda musula lunga jura la una muchel bana nyanda me musula lunga jura oh bi musula lumba ayyo ali nga mama munabi musula lumba la luz March each, each year is set aside the world over to celebrate women, to celebrate women's achievement. And this year we are here back again to talk about women's achievements, what we've been able to achieve so far in the Gambia, uh, their challenges, and uh, forge a way forward. And uh, with me today we have uh, my co-presenter, Bernadette Sane, and uh, over there Yasin Jiba and uh, we are going to be talking to these women you see seated here with us and uh, mbokk yi comme ni ma ko waxee rek uh, uh, tey bési jigéen ya jigéen yi la dégg ngeen suñ kañaleñ yi ñu ne bési jigéen yi la nañ leen génn ñu maagal ko ñun ñëpp loolu tax na ba tey ñu toog fii pour waxtaan ak yéen jëmale ko ci Eh, jigéen ñi seen taxawaay ci biir réew mi eh, waaye bala maa continuer du def dara lu may bàyyee leen ak Bernadette moom itam mu wax tuuti ci bés bi Bernadette. ah jërëjëf Ciss Edna Musu Badji eh, yi nga xam ne yéen ñoo seetaan fii comme ni ko Edna waxee tey bés bu màggala ci jigéen ñi mooy weeri maaj bi mu amee juróom-ñetti fan. daaw defoon nañ ko fi mu neex moo tax reen ñu dellu si waat fi te bëgg nañ déwén ñu def lu gën a rëy lii eh, gannaaw dañ ne waxtaan bi buñ fépp la te jigéen ñi ñoo moom bés bi te jigéen ñi macha allah uyu si nañ ñu siis eh, li ñoo def rek mooy eh, ñu bàyyi leen kàddu gi suñ kilifa yi fi am ci kaw taabul bi ak ñi nga xam ne ñoo féetee ci boor ba leen la de ñëpp ñu ngi leen a sargal sargal jigéen yi Gambie kontaan taan am. Ah, bég bég nañ si yéen kon dinañ tey li nga xam ne moom ngeen am si bés bi euh, yan yokkute ngeen am jëm kanam ngeen am euh, lan lañoo def ba wéeci wéeci yi nga xam ne mu ngi am mu gën a sax gën a dem kanam euh, yooyu yëpp nañ ko fi waxtaanee sista mu bàyyi la la ñu jox waaw fi mu nii rek ñu jox Yaasin moom it mu wax tuuti ci bés bi balaa ñoo jox suñ gan yi ñu introduce seen boppa Yaasin be min be ñato ta natilam abutum bawo musu ñaton kolu ni mol min yalon koy e motom muso la ko do ko lan ni wolle be jang a ngalon ko ñato do mandin dorom ni wol bebe kacalal abutum momo mi yalon koy e ben jibe kanyi wato la dorom alkana ta dawo dal GATS jibe bi mu muso la lungolti jërëjëf Yacine eh, mbokk yi nag suñ bopi watan bi at bu nekk dañ de tana team Euh, maanaam lu ñoo waxtaanee euh, at bi nag tiim bi mu ne pan africanism and african renaissance inspiring women inspiring change empowerment for women progress for all tey nag loolu la ñoo waxtaanee euh, du ma def dara lu mooy bàyyee suñ gani yi ñu introduce seen boppa su ko defee waxtaan bi commencé Thank you very much, Ms. Edna Musubaji. I am Ajaratu Mrs. Binta Jamme Sidibe. I am the Executive Director of the Women's Bureau. assalamu aleykum ɗum aja Usman Diallo, leti mbota combo south west coast region women council combo south focal pasin west coast region Elizabeth Yamide Francis Rena. A lot of people recognize my face over TV as um, Speaker of the National Assembly, but quite a few more people or more people know me as being in education for a very, very long time. I was um, not only a teacher of special English in maths and English at St. Joseph's High School, but I was the first and only woman principal of St. Augustine's High School and also and also the principal of Naus Comprehensive Senior Secondary School. In fact, I think people in Sukuta will recognize me as the person who started the Senior Secondary Technical School in Sukuta as well. Thank you. assalamu ajaratu alkaloti south west coast assalamu alaikum man la Aji Ami Diatta man maay Lady Councilor Serekunda Central focal passing KMC director takku liggéey skill training center. Yacine mun ngaa jox sa guest bi foofu ñoom tam ñu introduce seen boppa. Um, I think we are going to change the dimension. I will introduce them instead. Um, wole mu ajande um, awa kan siseti um, yalan ko mbengalan ko business la balem ndun karal lalem andu ah, ngamero ngamiran sola tawalla pour ngamu sol soto min yalan ko be business wala an ah, wo fanan soto jam uh, min ben uh, buluba karola wole mu fatu jahumpa siseti mbe yalo nun anene keta speaker ti national assembly andum mbe tembo min to atelem chairperson ti frap atongalon ngalon ko fana munyato ta doleti um, nga euh, women mobilize soto jang mi yalan ko amma mi nga tolo ni ay sato jifanga am jaaji ngalan ko fana uh, um, uh, uh, um, yaakaar naa ne jigéen ñi ngeen ñi toog fii tey introduce seen boppa wone nañ taxawaayu jigéen jëm kanami jigéen ci biir réew mi loolu tax na ñu doore ak chief executive director bu Women's Bureau su ko defee moom tam ñu wax ñu taxawaayam tey fii ci bési jigéen ñi waxtaan bi jëmale ko ci tiim bi ñu bàyyee la kàddu